nu daje fii tey ci kër gouverneur ci njaareem jóge Touba euh, jóge ci sëñ Ahmadou Makhtar mi nga xam ne mooy xalifa Daaru Xudus ñu jëlee ndigal ci magam ji nga xam ne mooy sëñ Sidi maxtar Mbacké di xalifa Xadimu Rasul euh, nga xam ne moom moo moo ne ci bopp kër gi ndax dañoo baaxoo waa kër Cheikh Mamadou Lamine Cheikh Mamadou Moustapha ñu bokk soxna Aminta Lo Xadimu Rasul ku mag ci kër gi rek yaa ko yilif te fi mu toll sëñ Sidi Moxtaar Mbàkke moo ko yilif comme ni mu yilifee jabootu Sëriñ Tuubaa gépp ba ci maam Maaram euh, kon ñëwoon fi tey ngir màggal googu nga xam ni Cheikhul Xadim mi nga xam ne jëloon nañ ko yóbbu ko résidence surveillée lu jege juróom-ñetti at mu jëw njaareem yàgg fi séjour na fi lu yàgg yàgg yàgg séjour carcéral bi mu defoon ci njaarim yàgg fi lool ba jotul a dem ci dëkkam bi nga xam ne moom la gënoon a bëgg muy Touba kookee bis boobu bii mu daan ñaan te waxoon ne euh, bis bi nga xam ne moo ko gënal mooy bi muy dajeeg suñu borom tabaraka wa taala te doomu aadama bi bu liggéeyee ci àddina liggéeyal suñu borom tabaraka wa taala bis bi pay gi tàmbali mooy bis bi nga xam ne ci la koy wujj ba taxoon mu wax ne baana li kulli man lahu maqulu anna wasilati huwa rasul leer na képp koo xam ne dangaa am xel képp bépp mbindéef ne man sama wasila mooy muhammadu rasulullahi salallahu alayhi wa sallam kon bis la bu bokk ci bis yi gën a màgg ci senegal ci tarixa eh, bu xadimu rasul Cheikh Mahamadou Moustapha Ndiagne lañ ko loon wooye ndax dafa meloon ci xadimu rasul wane suufeel boppam ngir xaadimu rasul bañ kenn bañ a foog ne da koy diir mbagg wala dara ba tax ñu tuddee ko njeeñ njeeñ mooy kawar gu sax ba xaadimu rasul woo ko ba mu ñëw mu ne ko yow de dindil loolu ndax dañoo soxla nga nite te doomu aadama bu nitewul daane ki bàyyi ma lay doon kon xaadimu rasul xamoon na ne moo koy wuutu ka koy wuutu dafa war a nite ñuy sant bu baax ki ñu ko tuddee muy sëñ Moustapha Doyoon moom itam mi ngi fi teew ci barab bi kon ñi duma leen tuddee tudd naa délégation bi nga xam ne ñoom la ñu àndal ak Serigne Abdourahmane mi nga xam ne moom itam ñu ngi koy masaw ci li nga xam ne dal na ci njabootu Serigne Cheikh Gagné Fadna te muy njabootu murid gépp mu di Serigne Abdou Fatah Mbacké mi fi jógee barki démb te bu yàggul Serigne Aliou Mbacké ñu tuddee suñu wayjur jógee fi ak Serigne Isaaxa kon alhamdulilah ñu ngi ñaan yàlla yokk seen leer foofu dañu gi nag da cee baax rek fàttaliwaat rek waaye mel na ne noonu rek la demee ndax liy préoccupation Daaru Xuddoos lépp xam ngeen ko rawatina mu jëm ci borom màggal gi di Xaadimu Rasuul sëñ Modou Moustapha jëkk ko koo defal ginnaaw ba mu jóge ci Serigne Cheikh Gaynde Fatma jaar foofa institué ko ñu continuer ci loola sëñ Mbàkke dina jaar ci sëñ Aliou jaar fa sëñ Xaadim jaar fa ak seen rakk ya fi newoon di sëñ Ibra ak euh, Serigne Saliou ambassadeur Serigne Fallou ñooñu ñëpp jaar ca ñu ànd ko ak seen i jigéen di ko màggal ba joonu tey ji kon loolee la ñuy war a màggalaat jëm ca mu war a doon la 10 wala le 11 ci euh, weer wi nga xam ne mooy mooy ñëw bu soobee yàlla yàlla ñu ci yàlla yóbbu te euh, monsieur le président de la république bi suñu xarit dëgg yàlla seeti nañu seeti nañu ba daaru nañu euh, ci booba nekkagu ko kon yàgg nañu ñoo ngi koy ñoo koy ñaanal bu baax yàlla jàppale ko ba fi mu jëmee réew mi suñu borom jàppale ko ci loola ndax Sénégal dañ ko bokk te mën ñu ko séddoo kon nag képp koo xam ne euh, sa xel nekk na ci liggéey rek nan bokk ñun ñëpp xam ne Sénégal noo ko moom kenn ku ne yéene ci jàmm kon yàlla na fi yàlla def jàmm ci Sénégal ci darajey Xaadimu Mustafaa mi nga xam ne mooy borom bis bi kon euh, noo ngi leen di sant ci loolu di sant presse bi itam ci seen taxawaay lépp loo xam ne lu baax la ña ngi koy relayer euh, di ci jàppale nit ñi di sensibiliser nit ñi te lépp ànd jëm ci lu baax kon presse bi itam mention spéciale ñu ngi leen koy defal di leen sant bu baax gouverneur ñu ngi dellu di la sant bu baax sa disponibilité wax dëgg yàlla waxtu wu ne yaa ngi sonn ngir doomu adama yi ak yaa sa chef de service région yi nga xam ne ñoo la encadré kon ñoo leen di jot di cantug euh, sëñ Ahmadou Mokhtar cantug sëñ Sidi Mokhtar boo xam ne dañ leen di bàyyee ak sëñ mu jotul leen ko. kon gouverneur euh, umpule wuñu ni bu bindoon doléance yi. yónnee leen ko bañ fee ñëw dingeen ci taxaw ni mu waree ba dara du ci manqué kon ñu leen sant ci turu sëriñ bi di yóbbantey cant nag ci seen i kilifa di sant président Macky Sall itam ndax euh, doomu sëriñ bi la taalibeem la xaritam la te cër bi mu ko war a jox yépp jox na ko ci lépp nag euh, di ko déglu ci lépp deselu ko dara kon euh, li nga xam ni moom la ko sëriñ bi ñaanal mooy li ñuy wax saa su nekk mooy ndimbalu yàlla ndimbalu yàlla soo ko xësee am loo song di ko daaneel loolu song nga daaneel ko loolu la ko sëriñ bi ñaanal te suñu borom yàpp nañu nangu na ñaan googu sëñ Cheikh Aliou nag sëriñ bi yóbbantey cant ak i ngërëm di ko jaarale ci yow ak sarak yu baax yi nga xam ne moom nga àndal euh, tàmbalee ko ja suñu mag ju baax ji sëriñ Mbàkke sëñ Cheikh Mbàkke sëñ Mbàkke Madina ak mboolem seen rakk yëpp te yeesal ay ñaan itam ci sëriñ Abdou Fatah nga xam ni doomam la woon xaritam taalibeem ku ko bëggoon euh, tey mu dudd àddina nga xam na nga mi ngi fi woon kon mu ngi yóbbante ay cant di ko jaarale ci yéen mu àgg ci Baye Ahmadul Maxtaar moo tax mu yóbbante ay cant ci Baye Ahmadul Maxtaar di ko yóbbante njabootu Cheikh Modou Moustapha gi yëpp ci cheikh yi ak taalibe yëpp xam ne ni ñu ko war a jàppee jàpp nañ ko fa ni ñu ko war a teg teg nañ ko ko li fi ñu ko fi ngeen ko war a féete itam féete ngeen ko fa kon nag ñu ngi sant baax tey ñaan te xam ni loolu rek moo fi am solo ñun ñoo fi des ndax ñoom ay mag lañu te lii rek mooy li nga xam ne moo ñuy dimbali ñu xam ne benn lañu ñu xam ne suñu waajur yi nii lañu ànde woon te ànd ga dañ ko gën a rafetal dafa gën a dëgër kon ñu ngi sant bu baax di sant di sant gouverneur ñu àgg ci bis ci bisimilah rahim génn ci alhamdulilah rabil alamin déglu nañu bu baax seen i demande également si wàllu secteur yi ngeen cité yëpp commencé ko si wàllu sécurité bi nu ngeen koy wax effectif yi moom agent général dañu koy bàyyi commissaire ak ay nitu sécurité yi moom ñoo xam nu ñu koy organiser parce que am si loo xam ne day secret mais xam na ne dañ def tout pour que li ngeen bëgg yéen mooy kër yi xam ne fa la ñuy màggalee ak bërëbu euh, penc mi ñu sécuriser ko nañ def tout pour ñu sécuriser ko entièrement nañ def tout également pour que circulation bi ñu mën ko régler ba xam ne nit ñi dañu mën a circuler normalement te kenn du perturber dara ci déroulement màggal gi ni ñu ko waxee woon sànq tamit ñi am pollution sonore bi tamit ah am na lu ñu war a gérer parce que jaay bi baax na am na fu muy toll pollution sonore lay doon am na lu ñu ci war a gérer surtout vraiment bi xam ne dañu fi yi itam dinañ ko rappelé commissaire pour mu mën see taxaw si wàllu woowu. si wàllu barrière yi tamit mel na ni moom bi muy dem 100 la noté woon nañ ko rappelé que 200 la 200 barrière la ñu soxla donc am 50 yi ñu am foofu. li gendarmerie am xam naa ne une trentaine la war a doon muy à peu près 80 à Touba mais également ñu wax jeunes yi mën a compléter li si des suy ñëw si renfort yi bu ñuy ñëw donc noté nañ ko bu baax li ngeen bëgg itam si wàllu circulation bi. Euh, gendarme yi je pense que jël nañ si note ñu faciliter circulation ñuy dugg si Touba mais également jàpp si yeneen partie de bi xam ne ñoom zone gendarmerie la donne, te ñu ko assurer seen sécurité également ñu jàpp si jàppale si police également Préparer wu comme ni ngeen ko Ce qui est ne soxla na ko mën a dugg si zone police jàppale waa police donc nous daal li ñuy xaar gendarmerie si faciliter pour circulation bi ñuy ñëw Touba mais faciliter également euh, la police également si liggéey bi noonu la tamit si sapeur pompier ñu ngi leen di xaar effectivement si conseil yi en matière en la matière si protection civile comme surtout wàllu nawet bi ñu nekk léegi koy def looy def nanga nga sóoraale nawet nga nekk te dina mun na am courant jàll donc foog ñu am sécurité bu ñu jël si wàllu woowu depuis fa ñuy defaree bâche bi fi ñuy defaree également yeneen liggéeyukaay ñu mën a jël euh, ma précaution yi mu war si wàllu woowu euh, ñu ngeen di jàppale waa santé également ambulance que tamit dañu mën a fournir ambulance mun ko complété en général problème effectif safar yi duñ koy am noonu mais ñu rappelé leen ko rek vraiment ñu di effectif bu doy par rapport kër yi xam ne ñoom lañu war a servir yëpp su wàllu santé ak hygiène ak waa assainissement sax mu jàpp nañ donc trois postes avancés yi je pense que dinañ ko def amul problème incha allah renforcer poste de santé bi tam dinañ ko def si wàllu médicament si wàllu personnel également dinañ ko def heureusement mu am foofu centre bi am ñaari ambulance yi tamit dinañ ko indi ñu boole ko ambulance sapeur yi mu ñetti ambulance yi ñu waxoon dinañ ko def mu des léegi kay xanaa wàllu vidange yi waaw wàllu vidange yi xëy na ñu xam ne ñu ngi koy demandé bu maire bi 130 yi espérons sax di ngeen ko def 150 monsieur le secteur municipal waaw waa ONAS tamit ñu insister ak ñoom tamit vraiment bon pas pas 5 camions pas 4 4 camions vraiment ñu def nombre de camions bi suffisant et puis surtout à temps ni ko sëñ Cheikh Thior waxee sànq parce que boo demee ba màggal gi yegg si circuler sax dootoo ko mën waaw bu ne nee suba la màggal gi gannaaw suba la màggal gi même boo amoon nombre de camion bu bëri tamit dootoo mën a circuler donc mieux vaut ñu teel a commencé. voilà teel a commencé 10 jours au moins à l' avance même bu doon ñaari camion dañuy mën a circuler normalement de voyage yu bëri bëri bëri parce que nombre de voyages yi moo si am importance nombre de rotation yi moo si am importance donc teel a ñëw vraiment lu mu mu doon a ñëw au moins une semaine 10 jours avant voilà pour mën a def teel a def liggéey bi comme ça bu ñu paree léegi même bu fekkee ne 5 camions la ñu am dañu mën a def ba 10 voyages par jour On boo defee 5 camions ñu mën a def 10 voyages par jour parce que circulation bi fluide na je pense que moo pour njëriñ da ngay indi 10 camions en 2 jours te dañu mën a circuler ni ñu normal vraiment ñu ngi insister parce que vraiment ñu on a ñëw à des jours avant le magal bi au moins 10 jours avant le magal on mën a commencer liggéey boobu. ñu ngi waaw waaw ñu ngi taxaw tamit ñu ngi xaata waa mairie si wàllu nettoyage bi mais unité UCG tam tey nekkuñ fi mais dinañ leen aviser ñoom te ñu ànd seeg waa mairie yi pour mën a def euh, nettoyage boobu UCG mooy unité de coordination de la gestion des déchets solides voilà am nañ antenne à Touba incha allah dinañ si ànd jàpp seeg waa mairie yi euh, ñu xool euh, li ñu war a def si nettoiement bi donc jàpp nañ seen panneau camion bi que panneau pelle la wala bulle la bulle bi voilà panne bulle bi bon ñu continuer ko suivre xool waa UCG tamit lu ñu mën a def si wàllu woowu waa ah ñoom amuñu bulle UCG am nañu ko voilà d'accord donc nañu ko xoolal waa UCG pour ñu li xam ne maire yi amu ko actuellement ñoom ñu mën ko compléter je pense que bu UCG ànd ak maire bi nettoyer dëkk bi dina war a mën a nekk ndax taalibe yi ñoom je pense que taxaw nañ disponible nañu si wàllu service d'hygiène tamit ñu ngi xaar voilà ñu désinfecté hangar bi mun ak résidence yi xam ne

ñu ngi xaar si wàllu woote bi bu ñu jógee foofu ñu jàll si wàllu énergie ak wàllu hydraulique comme ñoom ñaar ñoo ànd donc ñu ngi xaar éclairage public bi ñu taxawaat si defaraat ko si wàllu mairie bi si wàllu euh, Sénélec ngeen jàppalante lëkkaloo jàppalante rek boobu mbir muy dox ñu liñ si bëgg mooy résultat ni ma koy waxee ne temps yi complémentarité lañ siy xaar am na loo xam ne bu dee doolee en général état moo ko mën a indi. mais bu bëggee boo bëggee lu gaaw maire bi mooy gën a gaaw si yenn yi waaw bu nee këtt na joon léegi léeg maire mooy gën a gaaw bu fekkee ne dafa laaj nag doole dëgg il faut état ñëw comme ñaari bi ñoo ñoo ku nekk am ko sa atu nañ complété wante ne ba xam ne mën a def liggéey bi parce que sëñ bi moom ko intéressé mooy résultat bi dëkk bi leer bu dëkk bi leeree tant mieux mais di xool kii moo yore lii kii moo yore lii suñu yëfu bopp la suñu biir nañ ko dox suñu biir ba xam ne bu jotee euh, fourniture bi ñuy indi moom mu nekk loo xam ne day mucc ayib mais waaw mais ki xam ne moom lañuy liggéeyal kooku moom xam suñu yëf yi ñuy nekk ma liggéey daal war na mën na ko mën a kii waaw bañ ko see sonal donc ñu jéem a def rek tout pour que maire rek euh, Senelec ànd liggéey pour que éclairage public bi ñu mën ko def changement poteau yi tamit ñu ngi leen si xaar heureusement que léegi am ngeen poteau yi nay doy gis nañ genre poteau yi également je pense que moo gën peut-être yi ñu fi daan indi donc ñu ngi xaar te poteau yëpp ngeen doon ko changé fii ak màggal gi xam ne boo ko changé bi yoon jeex na mooy continuer ba màggal beneen bi si toog waaw ak lampe yi également li fépp mu laaj ampoule ngeen mun ko def dégg na tamit li ngeen wax si wàllu branchement provisoire bi moo koy xaar donc depuis conférence petit yi li ngeen wax si wàllu délestage yi tamit mettre ko hors délestage bon cela de soi moom ah mais tamit ñu war a ko rek ah voilà moom li ngeen wax assurance yi ngeen joxe tamit si fourniture bi tamit mais nañ teg groupe électrogène rek wàllu wàllu mécanique la wàllu machine la dafa ànd ak panne donc foog nga am moyen de secours boo xam ne su panne amee di nga ko mën a utiliser. dégg leen bu baax seen demande si wàllu denrée yi si wàllu ndax yàpp ak également jën bi xam ne tudduñ ko mais ñu koy utiliser si wàllu woowu dégg leen si kii facilitation yi ngeen si soxla tamit pour ñi xam ne ñu ngi jógee fenn di ñëw yooyu yëpp ñu ngi koy dégg dégg nañ ko donc waa douane dinañ jël mesures yi adéquates nous ma leen ko saisir tamit euh, colonel euh, direction centre pour que nous ayons instruction pour la direction centre mais mu jottali ko sax Dakar pour que nous ayons une région une direction comme direction du nord ou direction est ouest sud nous devons mën leen jox ay instruction nous surtout ñu nekk frontières frontière frontière Gambie c'est la direction centre le Bok. mais pour mener frontière Mali pour mel frontière Mauritanie si y direction une direction, il faut que donc euh, niveau central bi

prix qualité également quantité bi xam ne moom la leen soxla donc ñu ngi xaar demande bi si wàllu eaux de forêt ngeen def demande bi buñ ko indee incha allah dinañ ko jottali je pense que également direction eaux de forêt dina def li si war pour ñu mun leen a jox euh, permis yi si wàllu hydraulique maa ngi ko doon wax sànq donc foo ñu boole ko waa énergie donc cinq camions buñ ñu mën a dem ba 10 tant mieux comme vache yi naru naru ëpp six xam na kooku bu ñu mënoon dem ba 10 camions au moins euh, ñu mun ko kii mais bâche itam ni ma waxee mun ngeen ko commencé génne de waaw parce que c'est sûr que boo ko indee mun ngeen ko fi bàyyi ba màggal gi ñëwaat beneen màggal gi ñëw ah donc mun ngeen commencé génne bâche yi euh, mais ñu xaar daal 5 10 au moins pour mun a suppléer euh, li xam ne mën a remarqué say bâche comme ni mu ko waxee au moins 2 jours avant le màggal pour que ñoom it ñu mun a circuler mën a approvisionner nit ñi normalement dañ leen léeg dégg nañ leen naan wax si wàllu télécommunication je pense que ak euh, responsable bi leer na léegi te dina leen jox ligne LS mu clair que loolu li ñuy joxe gratuitement la